ngeen jëf mbokk internet di ñuy topp ci plateforme yi fi teew yépp ñu ngi leen di nuyu ziar leen ñaanal leen jàmm bu baax a baax amaat mbégte ak contentement jàkkaarloo ak yéen comme niñ koy defee saa su nekk tey ñu ñëw jàkkaarloo ak kenn koo xamante ne buñ ko waxee yaakaar naa ne kenn du ko présenté muy délégué Amar min ngeen ko ci showbiz saa su nekk rek bu tolluwaay réew mi tollee fii du ñàkk mu génn ci indi ay leeral ba tax na ñu ñëw seet si ko far waxtaan ak moom ci ñetti ponk yoo xamante ne gën ko ak ñoom waaye balaa dara dañ koy bàyyi mu ak mbokk internet yi nga xamante ne ñoo ñuy seetaan su ko defee ñu wéyal waxtaan bi délégué ñu ngi lay nuyu am mbégte loolu ñëw fekk la waaw maa ngi lay fay di waxati sant Serigne Mountakha Mbacké di ko ñaanal sunu borom yàggal ko di jiital ci moom nuyoo bi ak siyaar bi di nuyu këri tarixe dina yëpp di la ñaanal sunu borom yàgg di nuyu équipe bi nga àndalan ah, di leen nuyu yow soxna si di nuyu aji en même temps di leen nuyu di leen baalu àq te di leen baalu àq jërë ngeen jëf. Mm. ayca délégué euh, li ñu war a waxtaanee bari na lool ndax euh, yaakaar naa ni euh, jamono ji showbiz bi yëngu na lool ndax dinañ waxtaan ci oto bi nga xamante ni moo jur coow ci réew mi fay mm. ngeen am fayoo leen plainte yi ci jub lépp itam dinañ ci waxtaan oto bi dinañ ci dinañ ci ñëw alors après dinañ ñëw ci ki nga xamante ni moom mooy Doro Gueye ak Libération daal di ñëw ci seen tourne bi nga xamante ni ñu bëree bëri dañu jàpp que ni tournée ñaawal ngeen ko defee par rapport ak Sidi Diop bi nga xam ne mi ngi waajal jeune bi ni kii suba alors fi ñu koy dooree rek zénith bi. foofu laa koy dooree dama am mbégte. Mm. tey ci bi 9 jotee ci àjjuma ji. bi ma jotee sama téléphone mu sonné ñu ni ma am nañ mbégte tey ci àjjuma ji muy libéré Doro Gueye nga xam ne bañ ko jàppee ba léegi maa ngi nekk di xeex pour mu am liberte kon su ma xëyee tey ci àjjuma ji ñu woo ma wax ma loolu sama journée tey kon neex na donc libere nañu ko. bàyyi nañu ko mu ñibbiwaat këram ginnaaw bu juge bi at procureur bi jëlee ay ndogal ci moom may ko liberté di di leen félicité waat nag di félicité waat sunu justice su réew di leen wax ne gàcce ngaalaama ndax lii ñu def tey liggéey bu mag bii ñu def tey ci kaw Doro Gueye jàngal na nit ñi àdduna pour ñu xam ne sunu réew mi am na justice jàngal na tamit ñi nga xam ne ay kat la di ay milliardaire war a jokkalante ak ñeneen ñoo xam ne seen i partenaires wala lu mën di doon ñu teg lépp ci yoon te xam ne Sénégal gi am na justice jàngale nañ tamit ñi nga xam ne dañoo yëngu ci wàllum terrain te yoreel ay nit seen terrain wala lu don di doon ñu gaaw ko lijjanti fay ko bala moo àgg ci loxoy justice ndax bu accès ci loxoy justice justice dina def liggéeyam donc ñoo ngi ñaan yàlla suñu borom dooro Gueye lii mu nekk mujjanteelam mu bañ demati ci kaso incha allah. ndax nattu la rek tayit lii war na koo jàngat àdduna bu baax a baax a baax a baax a baax a baax a baax ñi nga xam ne nag yàlla dénk na leen wërsëg ñu nekk ci réew mi lii dal Doro Gueye nañ ci jàngat bu baax a baax a baax a baax seen digganteet seen nit yi seen digganteet waykat yi leen di topp wala mbari yi leen di topp wala kum man di doon ndax bu méttee doo leen gis ñoom ñëpp doo gis mbër doo gis porteur de voix la daan tagg doo gis waykat yi kenn ta Doro Gaye gis ngeen ne ku nekk la doon dimbali dimbali na ay kat dimbali na ay mbeuru lamb dimbali na ay porteur de voix dimbali na ay ñi doon sinap kon donc bu fekke ne koku dafa am jafe-jafe ñepp daw ko képp ko xamné yor nga alal ci réew mi bu fekke da nga am ay kat yu lay dara ki mbeur yu lay dar na nga sóoraale bis dina ñew bo nekkee ci jafe jafé do leen gis kon donc mom Doro Gaye ak Cheikh Amar jangal nañ ligai yi nga xamné am nañ dara ci réew mi te yor seen alal yoon wi ndax kat fii moom gars yi àndatuñ ànd nawle ànd nawle ñu ko fii ànd bëreetul boo ko dee boo ko dee wax sax da koy compter bëriwul ndax ngor moo amatul ci réew mi donc ñoo ngi ñaan yàlla Doro Gueye tamit na gën a fonk yaayam gën a fonk ay magam gën a fonk ay rakkam gën a fonk ñaari soxnaam yi nga xam ne xam naa leen ku ci mel ne muy tuus ak euh, rakki ay dara mm. na leen gën fonk parce bi mu nekkee ci biti dama doon gis mouvement yi ñu doon def dama doon gis coono yi ñu doon def dama doon gis jaayante gi ñu doon def pour seen borom kër am liberté loolu mooy soxna xaw ma ko xaw ma daa handicapé xaw ma lafañ la xaw ma lu mel mosuma ko gis xaw ma lu mel comprendre euh, nañu gën a góorgóorlu te yéen ñii nga xam ne ay borom ay góor yàlla ngeen te amagu leen soxla na ngeen xool ñu ngeen war a takk ba bu ngeen amee jafe-jafe duñ leen daw ba bu ngeen amee jafe-jafe duñ profitoo ci seen alal pour defe ne yéen du ngeen gaaw génn kaso mais yow lan nga jote ak Clara ba tax nga ne da nga tudd ñaari ñaari soxnaam bàyyi Clara teg moom ñetti jabar la yor man ñi ma xam dama ni la ñi ma xam ñii ñu baax considéré wu ma sama ngañ ñi nekkul ci moom lijjantiwu ko xaw ma ku ma doon xaw ma dafa verte xaw ma dafa rouge xaw ma dafa marron lijjanti wu ma ko xaw ma ko considéré wu ko. mais délégué lu tax nga bëgg di dugg ci kër jàmbur yi di ko jaxase quand même parce que boo nee. doora nga li waaw mais boo lijjantee ñaari jabaram bàyyi ñett yaa toog fii ne ma li ñuy live nangam bëri na de ma ne ko loolu man la loolu sama yoon nekk ci avant émission bi waaw. bul ma kon bul ne ma ay seytaan yaa njëkk a nekk seytaan ñëpp comprendre nga yaa ma ko njëkk a wax ne ma temps yi li ñu laay fal diw de ma bëri man la sama nga ñu ne. loolu kañ la yaa man am naa sañ-sañu nuyu ak tagg ñi nga xam ne xam naa leen waaye réew mi amul waaw ah, yow nga ci droit kay xam nga yaa ngi tooñ yéen yéen non non bàyyi leen di tooñ non non mayam ah, yow soo yoon nekku ci xaaral ma pare sama question xaaral ma pare sama question xoolal da def naa nga ma pare sama question léegi man mënu awuma sañ-sañ ñu ne maa ngi sant ne door a na nanga sant say rek jàpp say rek at say mag jàpp sa yaay gën koo fonk at say xaritu yaay jàpp tamit ki nga xam ne sa soxna la muy tuus tama xam ko at ki nga xam ne mooy euh, ay dara tama xam ko te gis ni doon sonne am naa sañ-sañ boobu wala wama sañ-sañ boobu euh, man dama bokk ci ah, famille wa ah, déglu rek non non buñ li yeen man déglu ma non non non non yaa ngi waxoo dëgg nag mosumaa xam kooku hmm. musuma tok ba wax ci mom wala may tok ba ni ni la mel wala nangam barki leer alcorane ben yon la ko musu gi sama aduna hmm. face to face muy tribunal kon bu leen ma tuddal ma sàmba buleen leen ma tuddal ma Demba aji conseillé naa Doro Gueye ci loolu ma xam ñi nga xam ne jàpp nañ ci combat boobu at sonn ci mu koy gis di ko teg seen bët ay sëy ba nangu ngeen ko nangu woo leen ko yéen c'est seen seen bopp dangeen defee ne képp kuy takk soxna baa muy ngénte da leen a war a woo leen ko non déedéet fii kenn ñàkk fee assumé non non loolu kenn ñàkku ci assumé en tout cas daal rek eh, ay yàlla na sëy barkeel ñu ci tout tànk suñu borom bu ko dogalee voilà ah mu ne en tout ci boppam ni mu sonnee ci Doro Gueye loolu mooy ànd nawle man gis naa mu génne wat génne koppar. génne génnewaat wat limba mënu ko wax ci xayma. biñ ñee suba la tabaski daf ma jox xaaliss bu bari bu bari la la wax de. ne ma demal nga jëndal ma ay nak at ay xar yobul mako ci kasso bi joxal mako ko doolu bala bala ma tabaski man wali mom mu ñëk ma am. Hmm. waaw barké leer alxuraan mako ko nak la wut ci tabaski. pour détenu kasso kaso fa yobbu nak parce que ben xar doyul détenu yépp munoo munoo munoo tuutal li may wax de munoo koo ñàkkal fayda it non non boo ne maa nag su ma la waxee kay ne la su ma la waxee ne la ay nag yóbbu ci kaso bi kay mooy kaso bi non voilà pour kaso bi la da nga mos a gis ku jëndum xar yóbbu ko ci kaso bi pour détenu yi détenu yi dañoo mën a lekk benn xar ah ñaata détenu ñoo nekk ci kaso bi waaw plus de ay cinq cent et quelques personnes wala mille mille personnes ñooñu benn xar leen mat benn sa rek sambur treize rek xanaa benn xar doy leen mm-hmm. libération ak ko yaa ko gis. yaa ko gis. lii nga non non dama ne ndax yaa ko gis. waxuma moo am de. Mhm. yaa ko gis wala moom la ñu génnee comme information. Oh, waxuma waxi information dama ni. ndax lii nga. non xam nga moo tax moo tax yéen seen métier bi dem leen ngeen tarbiyewaat ko. non non man déglu ma rek man xaw ma ci ndax du ma ci wax xaw ma ko dama ni la. ay avocat am danoo dem def demande liberté provisoire dossier boobu lañ jox juge bi juge bi jël dossier boobu jébbal ko procureur procureur signé juge bi signé greffier bi bind li muy bind 9 jot ñu yóbbul ko ko ci bi libéré ko. barki démb fi ak ngeen fi def titrage ne waa léegi dafa ne Doro Gaye génn est-ce que dëgg la te génnut. du dama nii non média bi rek. média bi laa ko gisee non man na bañ a nekk yéen. Ah. man du ma wax ne yéen la dama ni média bi fit ah. bind ñoo ko bind. ne libéré nañ Doro Gaye mm. te loolu amul li est-ce que loolu information bax la parce que ñako ko bind te ñako wax dañuy fen te la yalla dogal ak libéram ci mom liberté provisoire ay liberté conditionnelle ay non non non non liberté euh, gis nga nit bu la amé lee xaliss nga defal ko contrôle judiciaire xaw nuñ ko yoy non kon koku du mëna dem bitim rew liggéey xaliss bi mu la mëna fayat non si parce que am ñu bari seen liggéey du ci réew mi ñu ci les ku ci mel Doro nekkul ci Europe lay dem fa am entreprise am ay liggéeyam foofu dem daani doole indi fii ci investir kon su fekkee ne ñooñu da nga a def ay xawma li nga wax noonu ne sax liberté provisoire lañ demandé juge bi at procureur bi Doro boo ko mayee liberté provisoire ba heure boo ko soxlaa mu ñëw di kilifa du du du du nekkul ko koo xam ne waya wayaa la ci réew mi wala dara waya waya sax boo ko defee liberté provisoire dem mu war a ñëw te ñëwul problème ba ci am moom moo koy teg boppam donc loolu la. dëgg la c'est important alors dañuy avancer ci leneen ñu ñëw ci coowu oto bi nga xamante euh, jamono ji askanu senegal wax dëgg yàlla ñu ngi lay xaar nga àddu ci euh, ndax bokk na ci li nga xam ne na réew mi. oto boobu xaama tegal la benn audio. nga ndeyim bi ci boppam. vraiment booy yi bu ñu fontoo booy dañoo yabaate ñii xawma leen sax dañoo yabaate booy ay wax la ñuy dégg rek di wax man booy dañoo fii seen morom dafay newul bës la ñuy bëgg bu bëggee bës di jaar ci fii ñàkk fayda nit ñi dañoo tali ñun nit ñi nekk ci liggéey dañoo tali benn waay la woon sama benn waay boo xamante ni Assane la la tudd Thiam nag moom laa xam mais mosuma ko gis nee na suma fans la daf may yaa ngi dégg. Thiam daal di ma jékki-jékki woo ma ne man dafa am sama benn DG bu ma la bëgg a présenté na sa fans la dalaa bëgg dalaa bëgg a teral ma ne ko ah bon ma ne ko ah baax na ñëw leen maa ngi ñëwee ñu wax noonu ba ci yàgg mu ne ma daf may may oto yaa ngi dégg mu yëkkati ma ma ne ko lii nga ma jox de balaa ma koo dawal wala balaa ma ci dugg sama tànk dama koy yóbbu ci samay kilifa parce que Wally sekk ak euh, Baye Sall ñooy samay kilifa balaa ma fay def dara ñoom lay laaj ba pare yaa dégg ma jëleen yóbbu leen ci Wally ma ñëw ne papa kii mooy Assane Sall Touba la dëkk nee na sama fans la dafa yëkkati oto ne daf ma ko may waal ne ah loolu de kontaan naa ci. yéen ku leen teral samay samay famille ngeen man lañ teral man mii lañ teral Assane Sall de li nga def kontaan naa ci ndax ñii boo leen teralee mën nga teral ndax ñi samay njaboot lañ. Waly daa teg kotta daa di yéeg ci kawam kër këram ba pare ba moo yéeg mu ne ma bul dawal oto bi tànk amoo permis man ne ko ok papa mu ne ma dañoo weex dunk bul dawal oto bi tànk amoo permis man ne ko ok papa wala mu ne ma wala bu nekkee da ko bëgg a yóbbu soirée ma woo Cheikh mu dawalal la yaa ngi dégg ci la waxee Cheikh loolu Cheikh Laay wàcc ma ne ok ñu génn ci kër gi Assane Sall ne ma dégg nga wax kon donc oto bi bàyyi ma yóbbu ko léegi su ma ko yóbbu après boo xëyee nga envoyé ma sa carte d'identité ak verso ma def oto bi ci sa tur ma ne ko ok jour boobu laa gëj a dégg Assane Sall ba nii may wax ak yow nii. xaw ma leer ah. njàpp xam nga gañ la ko waale mayoon njëgu oto ba mu yéegee ci kaw seen ba la ko waale joxoon njëgu oto mu jël xaalis ba tabaxee ko seen kër kon kii xam nga ne fenkat la du ma ci sori ndax ndax kooku bëgg bës la rek xawuma ko muy nuróor Ouzin Keita kon amul lu may sori ci moom. voilà. mais su fekkoon ne waa ji li muy wax dina woo site internet yi. waaw mais ndeyu mbili gaa ngi nii. non ndeyu mbili kay mi ngi nii déglu ngeen ko noonu. est-ce que du prétexte bu ñu. waaw loolu moom la concerné bu ko defee it moom la concerné mais li wër bi wër mooy waali ci boppam mosuma gis mu may nit oto kooku ba kam jënd otoom toppaat ko naan ko fay ma waali du def loolu. waali ja 2018 jàpp 2017 ba 2019 jaay naa ko fi 10 oto yoo xam ne amee lu ma ci dërëm. dix oto laa la wax yoo xam ne amee lu ma ci dërëm te nit ku nekk su la waali waree jox oto daan la demal ci diw mu jox la oto nga ñëw ma jox la waali fayam waaw kooku lu muy ne ay xawma lan yu ñàkk fay de yi déglu naa ci biir wax mu naan waa côté boobu lañ leen tudd ci oto dafa bari ah. du dem lijjanti ndey mat baayam mi di du dem lijjanti ndey mat baayam marché ba ñuy nduggee muy lijjanti jàmbur loolu moo lay woon ne ay bëgg succès waaw bàyyil aji bàyyil di wax waxi da ngeen ko tooñ non non non non non non non non bàyyil di wax waxi tooñ mënumaa sukkandiku sax di wax ci booy boobu tax xaw ma ko xamaanduma ko di ko duma ko def comprendre nga euh, oto bi njàpp waale mayoon na ko njëgu oto bi ba mu yéegee ca kaw seen ma njàpp ci boppam xaalis boobu la leen tabaxee këram te incha bu jógee ci tournée bu ñëwee dina jënd oto jeex na yàlla rek xam at moom at jëmmam. Hmm. ah jàpp na ngeen defe ne ma ngi liggéey di te kese bu baax la am biir Faramareen. d'accord mais jàpp moo waral xale bu góor bi def sorti wax wax lu mel ni parce que ki mu tuumaal xale bu góor boobu neex na moom ci boppam. pelent dina ko fekk fa mu nekk. ndax dafa def accusation yu garaaw jëmale ko ci waale. non ñun xam nañ. Hmm. waaw xanaa xamoo ne dégg naa mu ni lan la wax 7 millions lañ ko bindal. nangama nangama nangam waaw kon kay waale fekkoon su fekkoon ne waale dafa jënd oto bi laa wax moo ko jënd. Mhm. bindal na ko lan segu. kon léegi lu ci yoon waale. <laughs> waale kon wàccoon naan ñoom di. waaw ñoom ñoom. ñoom waaw kon kay lu mu ciy tuddee waale. Ah, moom buy wax du dem waxat courtier boobu moom ki mu seqaloon business bi du dem waxat moom lu ci yoonu waale. ah. loolu lu suñ yoon ñun bu yegg siwul ñëwul kay ñu moom dafa jël otoom dem ci direct ci waali jaay ko ko ah waaw kon deful loolu kan daa jox nit otoom na dem lijjanti ko nit lu yoon waale mm-hmm. kon nit ko moo war a plainte moom moo war yow est-ce que dégg nga li ma wax man man dama ni la waali da um, njàpp nee na leen oto ba boobu la ko gëj a gis li mu la wax dafa leer de kon amul lu ñuy pelantee njàpp wala ñuy wax njàpp waaw waaw waaw yow da ngaa gis yow ab sec ñu wane ko da gis ñu ni la Wally yëkkati na ab sec jox na ko diw pour jënd njàpp oto kii di fen di dajale toog ci saalam booba tuñam mel ne bu waaye bu leen ma taxaw waaye waaw parce que daa bëgg bës xam nga nit bu bëggee bës du xalaat li ko ci mën a fekk ci loolu muy loolu muy xëcc ah yaa ñu dàq def tuuri doona fop du ngeen ñu seentu mukk ci galu xaj fekk ñu ci yow mom loolu rek la bëgg ci aduna moom moom bu sañon waaw bu sañon léegi ñu fekk ñu ci galu xaj ñu tok di lek non non maye wa mais sant yalla sant yalla musu ñoo non non non aji ñi ngi ciy sant musu ñoo leen musu leen ñoo deg ci ciow auto ñu am tan defet non non non non non non non bu fi duggaat ay yow gis nga ki veres iblis am gis nga ki veres iblis la dégg muy tuddu ay waxe wax non non yorom nekku ci. waaye aji du ci débattre duma ci sori. Hmm. Wally Seck jégul tinul bindul sekk di jox nit naan ko 7 millions nangama nangam waa léegi Wally daf leen a jox Seck. Wally xam naa ne ku mbindal Seck moom di ko photo pour denc. Hmm. boo toogee gali di doxaan naa ne waaw waa leen bindal <laughs> ah mais si ku me booy boobu koo xool xam ne jaaytaar bu bon la. ku ko xool xam ne bu bon la xeesal ba bi comprendre nga kon du ci sori di may buzz wala di waxat moom di succès est-ce que comprendre la na dem xooli leneen lu mu defi sama oto bi daf ko doon kii 4 millions yee yoo loolu may mënuñu ñëw taxal mënuñu ñëw salteel mënuñu ñëw teg gàkk-gàkk billahi doon am na solo alors dañuy bu dee bu dee aw faram moo ko woo téléphone ne ko demal nga kii sosal ñu nangam ma ngi naan ah, boppam aw faram. ah man de joxuma kanam googu gisuma ko sax wax dëgg pour man jigéen a toog di wax. man déggoo man délégué pour man jigéen a toog. ci droit non man délégué pour man jigéen a di wax Dakar Buzz. sama gis-gis la. man image jigéen la ma jox loolu kay sama gis-gis voilà. <coughs> d'accord c'est dañuy dem ci beneen point